asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu mbokki def gis TV ak euh, mboolem fu ñuy seetaane rek euh, di nuyu bu baax euh, ki nga xam ne daanaka moo tax tey may def vidéo bi muy Serigne Mbaye MC ñas mu Cheikh Ibrahima Niass ak Cissé di ki nga xam ne mooy moo jiite cellule communication moo yor léppi Serigne bi. Euh, waxtaan bi nag xam naa sax mën naa préciser ne lu ma diisoo la ak sëñ mbay ba noppi parce que depuis démb dama dégg ci internet bi ay nit ñoo xam ne li ñuy def mën naa wax ne yàq der lañ ci jublu euh, donte nag sax mënul yàq der parce que li ñuy wax loolu amul benn impact ay danga ko bëggoon a jaay ay da nga doon woo diw ko laaj xaalis ay euh, da nga nopp aji saar da ko doon bëgg a takk loolu lépp jàpp naa ne euh, wax ko yomb na loolu moom waxal ko nit nii yomb na su mu neexee léegi ma toog fii euh, waxal Babacar Touré wala Ousmane Sonko wala xalifa Sall ku ma neex lu neex waaye wax loolu loolu moom senegal la waaye li jafe te nga xam ne défier naa ci ñëpp parce que lii may wax ni nekkul loo nga xam ne dama cee dugg te xaw ma ko. Euh, defiyee naa ñëpp amul kenn ku lay génneel ab audio wala son wala dara loo xam ne dafay wane ne Baye mbay doon na jokkook sax ab autorité euh, jokkoo laa wax nag waxuma ne sax nag bay laaj xaalis maanaam jokkoo benn jokkoo boo xam ne dafa concerné mbirum aji saar di ca wax wala mu ci jéem a nas wala mu ci jéem a pexe amul te du ngeen mës a gis ñu génneel leen ko loolu kenn du ko mës a gis voilà loolu rek laa amoon sax daanaka lii rek moo taxoon may wax kum neex nag nga naan da doon laaj xaalis kooku amuñu ci problème jàpp naa ne lii ngeen dégg yéen sénégalais yi démb tam des yeneen yoo xam ne du ma ne da ko dégg de waaye aji saar moom xam na ñi xam-xam nañ xam nañ ne ku yor loolu boo ko jaayee woon un milliard état bi jënd ko parce que jàpp naa ne li ñuy def ci aji di ko def ci ñi ko wër di ko daj garde yi koy garde suñ xamoon ne lii rek mooy génn pour yàqu ko dinañ def seen kéemtalaay kàttan ba duñ ci jot waaye nag audio yi malheureusement ki ko yore kooku dafa jaayut parce que ci ñaari wet yépp si Alaaji Ibrahima Niass jurut ku ñuy jënd Lat Joor Jóob amul sët bu normal bu ñuy jënd te ma Lat Joor a jur ma sekk Jóob ma sekk Jóob jur ndey Baye Mbaye MC mii kooku dafa suur démb tey doog a ñëw dégg nga dafa suur démb tey doog a ñëw gis naa nag benn vidéo ngeen am euh, boo xam ne bis bu nekk ngeen génne ko mooy euh, euh, bi alaaj Aliou Sall defe naa mook Baye Mbaye ñoo daje ci benn ndaje Baye Mbaye jël micro ne ko man dama bëgg kër booba Baye Mbaye militant APR la buy ànd ak ñoom lam ci jublu woon loolu xaw ma mais li am solo te am solo daal mooy nit moom su fekkee da ngaa jël sa micro taxaw ci kanamu ñëpp gis ku nga xam ne jàpp nga ne liggéeyal nga ko lu war a mën a tax nga wax ko sa soxla wala dara kooku man loolu moom waxuñu ko mais yor audio Adji Sarr di ko jéem a jaay da ngeen a xamul sëñ mbay mais sëñ Mbaye ëpp na loolu fuuf te bu doon te ne am na njëg jënd ngeen ko ba tey ji affaire audio yi teg nañ ko ci suuf te jaar ngeen fu nekk nag pour euh, audio yi bañ a xam jàll jaar ngeen fu ne loolu ay ay mbir yu leer la yoo xam ne buñ ci tollee incha allahu taala dinañ ko leeral audio yi nag dëppi Baye mbay séq ko ak Adji Sarr ak tey dañul di ci déglu suma xalaat dañul di ci waxtaan ak man di ci diisoo ak man dañul ma ko ci tegtal fi nga xam ne buñ fa jaaree yàlla dinañu may dëkk jaar nañ fi ñu war a jaar yàquñu der xasuñu kenn amul lenn loo xamante ne nit mën na ko génne loo xam ne dafa jóge ci Baye mbay nekk naka sudul noonu ñi naan nag warta woon a enregistré Baye mbay warta woon a enregistré Adji Sarr tamit danaa ci profité ma tontu leen ñooñu amuñu xel parce que bu fekkonte ne Adji Sarr dafa am ay vie privée yu muy def yoo xam ne moom la concerné kooku ku ko enregistré yaa ko tooñ waaye Baye mbay dafa séq ak Adji ay waxtaan te waxtaan yooyu dafa concerné mbir moo xam ne fukki nit ak ñeent daf cee dee dañ war koo leeral mu conserné waat loo xam ne mën naa taal réew mi suba suba mu dox ba dugg ci loxol Baye mbay su fekkonte ne waxtaan ak waxtaan la rek jërul enregistré waaye loo xam ne wóor na ne la lii ci loxol yoon la nekk te pour nga dugg ci yoon xamul naan maa ko dégg maa ko jaare fii preuve la xam preuve nag doo yor sa téléphone sa téléphone mën laa jox preuve nga toog di xoole kon bu fekkente ne nit bu fekkee dafa nekk ci ay fen nga war ko nga mën koo gis war koo mën a jël preuve nga ne loolu dafa ñaaw kon dindi leen caméra de surveillance yi ngeen def ci seen place yi ak yi ngeen def ci seen bureau yi ak yi ngeen def seen kër yi parce que caméra de surveillance yooyu sàcc buy sàcc ñuy fekk ñu film ko mu génn ci lay wane sàcc buy sàcc nag ak fenkat buy fen yaakaar naa ne sorewuñu ab dégg kon na ngeen gindi caméra de surveillance yi te tere ko ci loi Sénégal ñu bañ a caméraati kenn parce que caméra koy sàcc dafa ñaaw parce que jàpp naa ne aji li mu doon muy def nii euh, sàcc sax moo ko tane loolu tamit dama ne woon naa ko ci leeral la waale beneen bi nga xam ne dinaa ko ci dolliwaat tuuti rek mu jëm ci Babacar Touré gis naa ko muy wax mais Babacar dama lay wax ne rek am na gis nga tan xeeb na mbedd mbeddu mellentaan dafa am ñoo xam ne bu ñu wayoon am nañ sëy baa ñu nàmpali baa ñu defi dara quoi waaye maire yoo xam ne dañoo lamb bay topp ci ay gone di wëgër wëgër yi dem bay couvrir ay fen ñooñu jëruñoo tontonteel yow kenn mënu laa dindi sa crédibilité bi nga am ci senegal nit ñi sénégalais xam nañ ñi ngi lay gis démb dalal nga Alpha Seynou Gueye affaire bi du yow du man du MC Niass du Cissé du keneen aji Sarr la ak Ousmane Sonko te loolu nekkul simplement mooy aji su audioom génnee dafa am juridiquement lu muy jariñ Ousmane Sonko yéen a waxoon da yor ay audio dangeen génnee audio Ousmane Sonko te denc audio MC Niass bu ko yore ngeen denc audio euh, Babacar Touré bu dee da ngeen ko yore ngeen denc audio Cheikh Bara bu dee da ngeen ko yore te ngeen génnee vidéo yi ngeen am ci Sonko defe naa loolu moo gën a moo gën a gaaw te moo gën a yombal guerre bi li nga xam ne tamit dinaa ko ci jeexal parce que mi ngi guddi mooy. Adji Sarr euh, fii ma toog léegi nii laa déglu euh, benn waxtaan bu gàtt bu mu def ak euh, benn benn maire ci Facebook waaye aji dama lay wax rek carte gi maanaam da nga cee daanu ba pare voilà maanaam yow da daanu ba pare man bu ma doon yow lu ma dugg ci di waxaat parce que na xam ne yow ak Baye mbay amul benn audio. bu ngeen waxtaan bu dul mi ngi téléphone yi te audio bii génn dafa concerné dossier Ousmane Sonko concerné complot concerné ay euh, personnalité yu mel noonu yoo xamante ne dafay am lu muy fi ñu fiyee ne ñii dañuy complot mooy ñi nga wax ne dangay ngay gisee ñoom danga am lu ngeen di séq ñooñu loolu dafa ko concerné ñi génne ko waaye gis nga li nu yor te yow xam nga ko. mën ngaa nax nag ñi nga àndal parce que léegi naxatoo nit ñi sénégalais yi xam nañ naxatoo leen mais ñi la couvrir wutal la foo dëkk ñoo ñu ngay jéem a nax mais wax leen ne yow ak Baye mbay da ngeen doon waxtaan ci lépp da nga demoon ba àgg ci da nga doon taal téléphone bi def appel toog ci biir ñoom Gabriel kat ñuy waxtaan am na bu ngeen di weramte sax naan pël nii la ñuy waxe jaay ma xaw ma lan ñi ciy waxtaan ñoom Gabriel ak ñëpp di xaqataay ah di waxtaan ngeen waxtaan seen waxtaanu àdduna nga enregistré nga def ko appel di dégg Baye Mbaye pour Baye Mbaye di déglu seen waxtaanu kër audio boobu am na. bu ma la waxee kii xoolem bi dafa metti te dafa bëgg bëtu gaynde lool di nga comprendre su ma la waxee dinaa jéem a naxanteeg agent yi ñu indi ma sa kër ma seet si la parce que bëgg naa la gis di nga comprendre la waxee bi ma nekk ci oto bi man maa ngi ci oto mais garaawul mën nañ wax non non lii sutura la waruñu waxtaan ci kanamu mbooloo di nga comprendre. su ma la waxee Faatumata Njaay Fuuta Tàmpi bi ñu koy jox xaalis bi maa ngi taxaw nga wax ko dinga nga comprendre su ma la waxee euh, Alaaj Juuf euh, ak ñëpp gaa yëpp nga ne gaa yëpp seen dund gi sensé na ñoom ñëpp seen dund gi dafa sensé léegi ñoom ñëpp man rek maa ci des ak suñu kër bëgg naa ko tabax mais su ma ko defee ak ni mu demee ah day indi beneen affaire yooyu yëpp dafa nekk ay audio benn bu nekk ak ak ak ak boppam ak Gabriel Kane wala dafa yor fëldu maan maa ngi ciy jooy bu ma jooyee ñu may ma fëldu bi mu ne ko yow ban nga yor mu ne douze Gabriel fan la jëlee fëldu mu ne Antoine si Ndiol moo ko ko jëndal Gabriel Kane boo déggee loolu li nga xam ne ñun ñëwuñu sa kër pour xam ne daña da ngaa yor ay ay lii donc aji yi nga wax daf bari li nga wax ci état du Sénégal di ko préparer pour boo tukkee nan nga war a def ak yooyu yëpp mi ngi fi li nga wax ci état du Sénégal rek dafa bari donc bul dugg ci naan montage ak lu ma xamul ñun ñi yor ojo yàlla dogal na ñu ngi woon ci yoonu suturaal la ànd ak yow parce que lii ñuy def lépp yow la ñuy de yóbbu la ci justice ñu wax wax nga wane ne nekkuloo ci dëgg nga dellu si waat gis nga bu la ñëpp bàyyee sa bàyyi nga dese te sa bàyyi baay mbay la am bu la ñëpp bàyyee sa yaay nga de sa sa sa mag nga dese te sa mag bàyyi mbay la am bu la ñëpp bàyyee alaaji Ibrahima Niass nga dese te alaaji Ibrahima Niass ba àddunay tukki moo jur bàyyi mbay kon donc am na wax yoo xam ne jërul dugg parce que ñun ci yoonu suturaal lañu nekk suñu neexoon jël yi yëpp def ko ci mbedd mi yokk ci suñuy vuy mais defuñu ko baay mbay defu ko xalaatu ko li mu def mooy fi mbaxana doone benn nga xam ne kooku mënul ñàkk a dégg dëgg kooku rek lañ ko wan te soo jaaree fi nga war a jaar te yam fi nga war a yam jàpp naa ne lépp dina yam ci suñu biir parce que yow xam nga li nga wax ñun xam nañ donc arrêteel di dugg ci ay live di fa wax ay wax yoo xamante ni mën na laa indil kéréel problème te boo xoolee yow li lay indil problème lépp ci ay live nga ko wax arrêté loolu voilà bu la neexee nag mën nga wax ne Baye mbay lu la neex donte bërki démb yow yaa doon wax naan doo d'accord ci nit kuy wax Baye Mbaye dara tey boo bëggee taxawaat di coow di wax baay mbay daf la nopp bu dee daf la nopp génneel audio wala benn preuve buy wane na yow baay mbay daf la nopp te amul laa wax yow loo mës a wax ak Baye Mbaye lu dul Baye Mbaye na ko. kon donc boo bëggee créer ay wax saaga yàkkamtee xeexal aji il faut nga def ndànk voilà te itam maa ngi waxaale Gabriel Kane képp ku lay jàppale loolu lay tëjee mooy tubaab dafa wax ne qui détient la information détient la pouvoir ki per la information per le pouvoir donc yéen yi daf leen war a wax li xew pour ngeen mën a continuer xeex mais su fekkee daf leen nëbbul li xew su ngeen xeexee da ngeen di jël coup parce que man du ma xool kenn ci yéen kuy wax te yërëmu ma ko parce que damay xam ne yéen xamu leen dara il faut nag ngeen tëj aji ci nekk ne ko na leen wax parce que El Hadj Diouf toog na 7TV mu ne aji nee na ko musul wax ak sëriñ bi donc tey audio génn na buy wane ne moom wax na ak sëriñ bi commencé waat na di leen wax ay wax yu ma xamul na leen wax li xew pour ngeen arrêté li ngeen di def parce ñun liñ toog bu ngeen ko xamoon du ngeen waxati. ku téyewu information tubaab daf ni ku yor information yaa yor mbir mi yaa yor dëgg kuñ perte information yi perte nga dëgg te donc yéen dafa ni gumba yuy xeex ngeen mooy yéen aji am na lu mu leen gëmloo am na lu muy wax ak yéen mais l'autre côté lan leen wax déglu dinañ leen di ngeen aji saar bu ko yàlla euh, am na ojo bu nga xam ne bi muy dikk Baye mbay ne ko dina enregistré Mamour Diallo pour jox la ko boobu ah maam Baye Mbaye daf ko enregistré loolu waxu leen ko na leen ko wax na leen aji wax li xew xam nga mooy mbër muñ daan ba këpp la ba nga def carte appui ba noppi ngay gëm loo si supporter ne arbitre suufleegul ma loolu laa gis voilà lii nag génn bi ma ma génn nii maa ngi daal défier damay wax ni képp koo xam ne jàpp nga ne am nga loo yore luy wane ne Baye mbay da doon jaay ojo wala Baye mbay daf doon nobante kii wala kaa ah génnee ko soo ko génnee rek incha allahu taala euh, ñun ñu ngi fi du ngeen génne mukk ci àdduna benn audio bu Baye mbay di wax ak autorité ko APR wala benn audio bu muy wax kenn di wax ci problème mu audio wala muy jaay audio wala muy jënd audio wala muy nab kenn aji Sarr ak Baye mbay mu suñu gisante Baye Mbaye bi muy dugg ci problème mu Adji Sarr daf ci dugg en tant que ku toog dégg ñuy tudd sa baay muy El Hadj Ibrahima Niass aji di ko tudd mu dugg ci dossier bi en tànk que koo xam ne daf taalibe baayam la doon jàppale finalement Adji Sarr ko di waxtaan ak moom ci entre taalibe ak sëriñ waaw dajewuñ ci baar dajewuñ ci restaurant dajewuñ ci mbedd dëkk bi ñoom Adji Sarr dëkk ko fay fanaan taalibe Baye Mbaye ka donc kon Adji Sarr ak Baye Mbaye di nobante pour takkante dafa xat lépp suñu kanam la am te yàlla dogal nañu ñun wàccuñu dara parce boo gisee sëñ bay doon enregistré Adji Sarr logique baa ngi nii tey parce que bu ko enregistré wul woon rek da ngeen fabriqué lu leen neex ngeen teg ko ci taabal ci waaye damay leen di wax ne booy am adversaire na nga ñaan yàlla mu nekkub seer waaye adversaire yi ngeen am nag dañoo nekkatu seer wasalaam